wi la taam ci wépp yoon taw feex ak i cant amiin te mucc nañ ñi beeki koom koo xam ni kii noo ko gane yal na ko ay ngërëm gane yal na ko barke it gane te bañ a tee jógit bi moom képp ku gane mbaate nu jóg ko gane yal na nu yàlla farmane gan te bégal nu luum mu jàng ko yor yal na ko fab lépp bu wér jox nu ko jox ku jenn loru newul te dolli nuy woon yàlla na nu am ndolleen ba joxe nag ndolleen lu lu rëy rëy ba gën a rëy lépp lu rëy te far ko tiim bi dolli nuy yu baax yu bare ak ñu baax a baax ñu bare ak jant bu baax gu yemu yow amoo moroom naa teg lu rëy ci sa loxo lu kenn tegul ci sa loxo te rikk tàllalal yoxo sakul nu lii fa sa boroom def nuy murit yu gën a gën yu jigéewul dara lu bon te def nu ñoo xam ne lu bon du jóg ba jëm mukk ci ñoom sori nu lépp nag lu bon sori nu it luy taxa bon na sunu yitte kawe nun ba jàllaay soxnaa ki doom nanga nu def ko a dër koo xam ni kii moo gën a dër mboolem ku ngëb ci yow bu dër akub xolam ak i yoxoom defal lu rëy ci saa yoxo loo fa bëggul def ci yoxo ma fab ko ci sa yoxo te bañ a wax dara ni xiim tabe nga am nga yit lu rëy am lu yaa ko ko may tey ak ëllëg na nga nu may mucc njariñ fa wakki koom sëriñ bi gëm nga maye gëm am nga ndamit te maye ndam yaa may gëm ak ndam ku ko am yaa sedd xol serali xol yée nga nu biti yee nu biir nun ñëpp laaye nga nu biir yaa mat ci biti biir noo ngoogu nun ñëpp yoral